ci diwaanu Cap Skirring touriste yi ñu ngi ñëw bu baax wante fu sorewul dara ci diwaanu Lac Rose mbir mi neneen la demee jamono ji melukaanu ndoxu lac bi daanaka bokk na ci li dàq visiteurs yi nam bu fekkente ne coowal Covid 19 jeex na tàkk. boo ñëwee Lac Rose euh, di nga wax gis ni situation bi changé na euh, parce que yaakaar naa ni saison touristique euh, su ma sant ji rek boo ñëwee fii day fekk mi ngi commencé am ay mi ngi mouvementé mi ngi yëngu. donc yooyu yëpp boo gisee euh, li nga wax euh, surtout si côté euh, environnement bi donc yooyu yëpp daf si joué daf si am boo xam ni def na ko si waaw muy gis nga lag bi ni mu mel dafa am loo xam ni moo doon attiré tubaab yi moo taxoon nit di jóge fu ne si àdduna di fi ñëw muy coloration rouge nga xam moo fi woon ak exploitation industrielle bi xam ni moom lañ si doon def donc tey ji gis nga ni ñaar yooyu amatu fi yaakaar naa ni loolu ah, li xam te ni waral na tey ah, touristes yi ñu doon ñëwee Lac Rose ñëwatuñ ko waaw ah, parce que daaw bu ñu fàtte ni dañ fi dugaloon ndox bu bari boo xam ne si plan ORSEC bi ndox boobu bi bi mu fi duggee moom moo waral lii fi am tey maanaam lac bi changé changé couleur donc te coloration rose boobu ak xorom bi moo daan indi nit ñi mu loo xam te ni ay yàq-yàq la yoo xam te ni vraiment daf ñu laal bu baax ba tax na daal xalaat na ni aussi niñ doon yaakaaree saison bi ak ni mu daal mel daal gisaguñ loolu jafe-jafe yi man foo ko natt moom weesu na ko xam nga fi nekk yaa ngi si ba saison bu ubbi tubaab bi war a ñëw xam nga saison bu ubbi na yaa ngi si ba nga gis xëysee ba tey gisoo tubaab kon xam nga loolu rek premier jafe-jafe la parce que Lac bi Rose amuñu beñaat jaayatuñu destination lag Rose loolu mooy premier jafe-jafe bi deuxième mooy nga xëy toog ba ngoon jot doo jaay parce que tey destination Lac Rose benn agence touristique jaayi du ko parce que tubaab boo jaay destination Lac Rose bu ñëwee gisul Lac Rose da nga ko fay xaalisam kon ñoom duñu amatee droit pour jaay destination Lac Rose parce que Lac Rose yi moo si daan indi si di ñu fi ñëw dañuy ñëw wax dem jàll mais jurul dara waaw vraiment jë loolu loo xam ne vraiment nekk na suñu lool nekk ay si jafe-jafe yoo xam ne vraiment kenn fekk suñu kenn fekk kenn kenn daal vraiment. ñu si bët lu ma lu ma lu ma lu ma vingt place ñu ndox mi génnuñu yóbbu ndox mi yóbbu ne yóbbu ne bagage ba pare euh, euh, crédit semence boo xam ne kenn xamul toll gis nga nag bi nu mu méttee xam nga ñu daan ñëw xaj bi ñëwatuñu ndax am parce que dangay dangay ñëw doo jaay te dangay ñëw pour lu am lu yóbbu sa kër kampa dangay ñëw am lu yóbbu sa kër te fi mën a xam dara loo fi def yaa ngi si nu mu xaw kenn naw fi vraiment ay jafe-jafe yu doy waar lañ jural xam nga vraiment waaw crédit semence bu doy waar waaw ñàkkum promotion ak itam kaaraange doon na lu sonal Lac Rose bile ñii di fi yëngu ci wàllum tourisme ñu ngi njort ne amaana ñu gis benn tourist ci saison bile. mën nañoo ñëw mën nañoo bañ a egsi parce que tey bu ñu ñëwee tey seen activité lañ def dem ñibbi mais fii marché bi bañaat moo tax ñu firaat ñëw ak Lac Rose bi mais loolu yëpp gisatuñ ko fi ndax bu Lac Rose woon Cap Skirring ki nga bu fa am une semaine fii nga yëgale sa fin vacances jaara fi ñibbi mais li tax loolu amul yëpp Lac bi moo tax moo tax loolu du mën a am. waaw loolu moom dañ ci xaw parce que mënuñu wax ni à ah, ah, ah, cent pour cent ni tous yi dinañ ñëw parce que comme li ma la wax sànq rek li xam te ni vraiment moo fi doon indi tubaab yi mooy coloration rose bi ak exploitation di sel bi amatu fi comme yooyu amatu fi tey jii ku nekk dangay am yaakaar rek mais ñu xalaat ni même touriste mën na am Sénégal mais du du bëri la rose mën na fi bañ a bëri waaw parce que vraiment li leen daan attiré loolu moom moo fi amatul donc boo gisee tey jii état bi lu mel ni ouverture euh, saison touristique waroon ni mën ka defee defee fu mel ni Lac Rose bu bu waawaa xam nga ñu ñu préparé ko euh, xool des fois ay xam nga nettoyage euh, aménagé xool environnement bi ñu waxtaan si mais ba ouverture touristique daray am ba léegi saison touristique mas ñu ko defee Lac Rose masul am même le ministre Omar Gueye bi mu bi mu dëkkee ñun bi fi nekkee ministre tourisme def nañ ouverture de saison touristique ñu yóbbu ko Mbour defoo ko fii Lac Rose donc loolu lépp day wane manque considération boo xam te ni ah, nit ñi ah, suñu état bi ah, li ñu ko war a jox Lac Rose dayoo bi ñu war a jox Lac joxuñu ko ndax xëy na dama yaakaar dañoo xamul njariñu Lac Rose ak lii Lac Rose role rôle bi muy def si tourisme si Sénégal ak tour bi mu am si àdduna li muy génn économiquement di di contribuer ak tourisme ni ni mu ni ni mu amee doole nekk nekk presque troisième euh, secteur économique Sénégal na donc yooyu yaakaar naa ni bu ñu gisee lu mel ni Lac Rose xam te ni mooy le poumon doo gis tubaab ñaari tubaab ñëw Sénégal te ñëwuñu Lac Rose bu demee ñu état seetaan nii ah seetaan la Lac Rose ba Lac Rose a nekk ma ne nar mi ngi nekk am fayit ñu seetaan ko environnement bi di yàqu seetaan Lac Rose environnement bi di dem ba ba touché lak bi ba yëpp xam te ni moo fi daan indi indi nit muy patrimoine boo xam te ni day mën nañ xam ne fekk ëllëg bu continuer patrimoine boo xam ne day disparaître lay doon ci wetu ndox bi ñii di yëngu ci wàllum tourisme di artu gouvernement bi di sàkku ci bépp ministère bu laalee ci mbir mi ñu ñëw wallu leen ci kaaraange ak itam ci promotion bi la site. ñàkk promotion bi ke du mën a am parce que lac bi rose amul beñaat parce que dimbal bi ñu nga xam ne moom lañ waroon a def pour heure bi lac bi rose amuñu ko parce que dañu ne dañuy wàññi ndox mi ndox mi wàññeekoo ba tey. Lac bu Rose amul bañaat kay destination ba agence duñ ko mën a jaay pour mën a gis suñu bopp. li nga wax sécurité bi ñoo ni Lac Rose amul sécurité amul amul amul leerul dafa bëri ay agression dafa bëri agression bu ñemee woo génn guddi ñemoo dem si géej gi tout le temps ñu ngi wax ay ay ay ay ay agression amul lumière hmm, sécurité day day manqué liggéey bi ñaaw na amul benn organisation. booba léegi kenn xamul ay at ñoo ñoo ngi xaar mais yooyu yëpp daf dafa manqué moo tax ma ne état bi di gëdd bi mu war a jox Lac Rose joxu ko ko. ñun vraiment ñun amuñu benn surtout wàllu artisanat d'ailleurs sax euh, boo xoolee restauration bi ñoom ñooñu tene ndax euh, client buy ñëw dina xam ne dina añ dina def activité mais doo xam ne village artisanal ñun ay client dañu commencé ñu ko ay yoon yoon yoo xam ne dañ fiy jaar ne li ngeen jaar rafet na mais xamuñu ne am na loolu cest dire que ñun ñun surtout ñun wàllu artisanat am na trop suñu euh, village artisanal yoo xam artisanal ne ay professionnels ñoo fa nekk di liggéey liggéey bu baax war nañ ko mën dooleel li ñu ko dooleel mooy xam naa ne xam nga lu mel ni syndicat d'initiative tourisme am na fi maanaam donc état bi waroon na mën a jege syndicat bi ñu xool le mots lan mooy problème yi problème lan lan moo fi manqué lan mooy seen seen seen i coono ñu waxtaan. toog muy doon une semaine wala weekend boo xamante ni ah, Lac Rose waroon na am benn weekend boo xamante ni daan di xam ne weekend Lac Rose moom moo ko moom si mu si ñu bokk def ko si calendrier bi muy loo xamante ni ah, ñu ñoo koy moom suñu bopp chaque weekend boo xamante ni si at mi waa Lac Rose moo koy moom ñu mën a toog di di jàngat di xool sa sañuy métti métti def def def promotion Lac Rose kese mën na jaay destination Sénégal buñ ko topp nañ ko toppee Lac Rose kese mën na jaay destination touristique bu bu Sénégal état bi daf ko seetaan dañ ko seetaan amul promotion visibilité bi des na loolu lépp vraiment c'est une manque à gagner loo xam ni daf ñuy touché di touché secteurs yi xam te ne yoo xam ni muy hôtel yeeg euh, ñi liggéey si xorom ba ñëpp ñëpp lay laal te fii yaakaar naa bu ñu xamoon njariñ li fi ne dina gën a jox cër lac bi dina gën a jox cër ñi fi ne amuñu ay festival amuñu ay journée loolu aussi tax na lu tax Lac Rose gën de ndax lu toll Lac Rose amul festival amul amul amul amul amul amul xam ne ñu ngi ko loolu aussi bokkoon si a suuxal aussi ak ak ak ñi ñooy ñooy jox loolu xam nga ñu fexe ñoo créé ay journée ñoom ay festival yu mag fii ndax loolu waroon na nekk fii ay journée yu mag bu defee la Rose gën a lancé wu daal surtout daal artisanat tey jii ñii nekk nii récupérer seen i place ñoom ñu leen lu dul lii donc depuis daaw bu fekkee ñun ndox ñëw na ba dugg si lag bi daaneel suñuy boutique yóbbu suñu marchandise ministère de l'artisanat ministère du tourisme état gisuñu kenn koo xam ni ñëw na pour daan ni xaaral ñu dem la doo jëm leen a taxaw amul benn soutien benn soutien bu nu jot du du du du le ministre tourisme du le ministre de de l' artisanat du état Sénégal donc artisans yi ñu ngi souffrir waaw ah, sonn nañ ah, touristes yi amul seeni bagage bagages seen i seen i marchandises seen i place ndox bi jël na ko gis nga lii lépp yaa ngi koy gis. daaw ba amul kenn ku si ñëw si si ñoom ni muy le ministre tourisme wala artisanat ni wax ñu mars wala vraiment dem nañ seeti leen mais ba tey nit ñu bàyyi en rade donc artisan yi sonn nañ ah, gis ñu kenn koo xam ni taxaw nañ ah, te yaakaar naa ni artisanat aussi ah, am na am na am na doole te am na rôle boo xam ne mi ngi koy joué tourisme tourisme mënta dem sans artisanat donc nañ nañu gën a gën a jox cër ñu gestu artisan yi te xam ne artisan yi aussi yuy Lac Rose vraiment sonn nañ te gis ñu benn aide bu jógee si état bi autorité xanaa gisuñu kenn muy la maire muy ministre de tourisme ministre la artisanat gisuñu suñu place yëpp si biir ndox mi mi sama place si biir ndox mi la nekkoon place yi may defar dama taqale defar defar ba am fu ma teg sama bagage parce que moom laa xam liggéey bi moom laa xam pendant des années maa ngi si mënuma liggéey benn liggéey bu dul moom looloo tax ma fiy nekk ba heure mais su ma gisoon leneen lu ko tene dama koy bàyyi dem defi ko mais gisuma lu ko tene moo tax ma nekk si dina gis ne ko naan du dundee yaakaar ni dina moom yaakaar rek la am yaakaar boobu ñu ko dundee ba tey xam dina continuer wala dina donte nemmeeku nañu ne saison touristique bi tàmbali na ci diwaanu Sénégal melukaan gi ñu gis diggante Cap Skirring jàpp Lac Rose doon na lu mat a bàyyi xel Lac Rose ni mu mel jamono ji doon na lu état war a boole ci ay yitteem ci nu mu gën a gaawee.